Euh, euh, euh, am jëkkër am far ñoo ngi koy dool yi xalaat mais góor gi nga xam ne dafa topp jabaru jàmbur yi nag dafa am ñoo xam ne vice la ñu yoree waaw ñooñu yàlla man day ñu ñooñu moom baag yàlla rek xam xam ne yàlla dënnu la waaye nelawul de parce que dañu naan jabaru jàmbur du sonal du la kalaame du kër du histoire ak yow bari na ci ñoo alal ñoo xam ne sax dañuy fekk ay jabaru jàmbur di leen yootal di leen di leen filmer ba ba dévier mais loolu nag amoo amoo ci amoo ci sax presque conseil parce que boo xamee ne di nga dajeeg te booy ñëw da ngay désarmé wu ñu yow la ba nga ne ngoon. jabar la ñu bàyyi kër gaa ah. nga bàyyi jabar muy. souffrir bàyyi jabar kër ga ataa sax jabar ji ñuy bàyyi duñ ko bégal. mais duñ ko bégal mukk mukk mukk. bu ñëwee ci lal bi wëlbatiku ne so seen pyjama tëdd nelaw bu ñu yeewoo bon waxee guddi. du ma ko waxaan man def naa benn reportage ci benn xale bu góor ci benn boîte de nuit baar sax la dafa am jabar. Mhm. mais bu bëggee yëg boppam ci façon bi mu bëggee yëgee boppam day dem jënd ji jigéen day luyee jigéen. day dem luyee ji jigéen bi ma ko laajee bu téléphone bi ñëwee rek ni ñëw bi ma ko laajee. salaamaaleykum bi ma ko laajee ni ko lu tax munu ma am naa jabar. munu ma salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi noo def. gërëmaat yàlla. yàlla yàgg. amiin ñu bokk ko. damaa bëgg a dugg ci émission bi. ayca lay déglu. direct yéen a waaw bu baax a baax. waaw man la Soxna Ndeye Diop mu sëñ Fallou dëkk Pikine. ñoo ngi lay jaar bu baax a baax a euh, yàlla yàlla doon nañu yoon yàlla yàlla boole yoon bi di rafetlu émission bi vraiment. jërëjëf. Euh, di santaat yàlla bu baax di ñaan yàlla ñëpp déglu leen. amin boole dégg ak jëfe. amin yaa rabbal alamin. ndaw si toog nag laa bëgg a xam turam. Adja Ndaak. Adja Ndaak boo gisee ma jël sama xaalis jëndi bëgg a dugg. Mm-hmm. barke Serigne Touba bëgg naa la ci sa yiw. wallaay ñu bari nga koy wax. bëgg laa ci sa yar. Mhm. bëgg la ci say waxin. wallaay dëgg la. yow exemplaire la. macha allah. li ngay yee jigéen ñi di ko dugal ci seen bopp. ay ah. wax jigéen ñi. wallaay dëgg la. nañu te dégg. Mhm. jigéen amulut bopp. wallaay dëgg la. ñun jigéen li baax lépp suñu borom ñun la ko dénk. Mhm. ñu war a maandu. kër yii fi nga koy baax. oto yii. su la baax. ak taar bi day jeex. dëgg la. waaye jikko ak jëf du dañ. déedéet. dëgg la. boo nekkee ci lu la neex. ala kulli alal lu mu metti metti bi dina ñëw nga tëdd. ak ñuy yuuxoo ñu nekk ca wet nekk ca gi ga kenn mënta tere ñu nekk la say jëf. lay dëgg la. te jigéen day mànga sinub yàlla. Mm-hmm. te it jigéen du saye tàllal loxoom ni mosuma mooy yàlla. Mm. doy na ndam. lay doy na bul am alal bul am dara. loolu doy na ndam. Mm-hmm. ñaawal soluwoo dafoo dërëm waaye ndamu jigéen mooy musuma mooy sama borom musuma mooy góor sama borom mhm. sa jëkkër dina la wóolu du la yab di ngeen ànd couple bu neex macha allah. Mhm. waaye ku topp oto yeeg kër yeeg col yi rafet yeeg biir si yeeg lii. Mhm. illaahi sa pàttax. walaay dëgg la. bés di nga ñëw di nga ne suba ndax ñi ko fi doon def ñëpp xanaa ku ci yàlla dimbali nga tuub waaye ku ci tuubul yaa ci erreur. ku tuub la suñu borom yërmandeem yaa la waaye wallaahi alazim soxna si bëgg laa la ndaal sa numéro téléphone rek laa bëgg. waaw après dinañ la ko jox ci. incha allah man laa sopp ba nga xam ni. maa la gën a sopp ëpp na. soxna day jóg sëñ Fall restaurant Pikine laa dëkk Ecobank bi mooy sama kër. waaye wallaahi alazim man damaa bëgg ku baax di wax lu baax. jërëjëf jërëjëf. di yee ko lay te yàlla nañ ko dégg. te jëfe ko. jërëjëf ndax valeur ci dañoo am valeur. dañ ko war a xam. wallaay dëgg la xool suñu ndey yu baax yi ñu teg ko seetaan ñu teg ko fa. daal suñu doole te sellal ko te te jéem lu baax rek te ne ci rek sama xol dafa sedd mënumaa wax lii rek laa mën a wax. macha allah. boo wootee ci régie bi rek. su émission bi jeexee ba wootee ñu jox la ko. walaay dëgg la macha allah ku baax moom it. maa la gën a bëgg mm-hmm. maa la gën a sopp njagga wax bu jógee ci xol ci xol lay. walaay leen walaay dëgg la te ñun dañuy jéem a góorgóorlu di nab nabi. Mm-hmm. ci li ñu doon te for ci suñu dund ñu koy bokk ak téléspectateurs yi mm-hmm. kon man tam maa ngi lay delloo cofee di lay boole mbëggeel nga wax wax bu am solo xam nga njaga yooyu amatul léegi déedéet dañ daan wax jigéen bu fas daanoo biiram di métti métti waaw ñu ne jigéen ju musul mooy yàlla bu ko jégee mu jóg walaay walaay walaay nga nekk ak sa jëkkër sa doom am problème nga jabu ci sa digganteeg sa borom kër sama borom fay ko mais loolu mooy honneur loolu milliard fay te léegi nag macha allah vertu dafa am tendance di dem mm-hmm. bien que nag fa ndox daan taa boo demee fekk fa tepp tepp yi jigéen ñi jàmbaar yi nekk seen biir kër yi oyof sër lool mm-hmm. oyof mbubu lool amuñu takkaay amuñu gànjar waaye mu riis ci valeur ñu riche ci valeur riche ci xam ñooy kan mm-hmm. parce que gis nga ni bu réeree boppam rek comme àndal sànq la wallaay dëgg la jigéen nag moom la yàlla may trésor di ci denk doom joo xam ne fii ñi fi baax ñëpp jigéen a leen waaye xam li ñuy wax da la yóbbu jeeg wallaay jur doom mu màgg taxaw ñu ne diwa ko jur jar na sëy ba dee. walaay jur walaay dëgg la te benn doom bu baax attana askan. walaay dëgg la. benn doom bu baax. Hmm. defi na askanam yëpp. yëpp walaay dëgg la. kon ñu ciy ñaanal di rendre hommage bépp jigéen boo xam ne. Hmm. yaa ngi toog ci sa kër di sëy mu metti mu metti loolu te sama yaay na bala mu ne war war war. walaay dëgg la war war jooju nag. as goro ko fay xaar walaay moo ko fay xaar as goro gën a góorgóorlu ñu nekk ci biir néegu sëy te mu metti nekk góor ñu naqari deret yi. Hmm. nekk goro yu naqari deret yi mais que njëkk yi kenn mënta dëkkal hmm. ak jarbaatu jëkkër yi ñu leen di ñaax rek ñu muñ dara yàggul dara yàggul dana taax am taax mu rëy dugal la ca nga noppalu te jërëjëf Adja Ndaak dara yàggul euh, di lay jaajëfal bu baax yàlla na yàlla bàyyi laa sa xel yàlla dooli la sutura musal la ci cat euh, Sénégal boo génnee euh, sa xel mu sel macha allah dañ koy waxtaanee kenn ku nekk am cofeel bu muy wane ci équipe bi waaye di ko wanee ci sa jëmm gi waaye tamit di ko wane ci jëmmi gi nga xam ne mooy Mantoulaye di ñaan yàlla tamit moom it yàlla dolli sutura moom Mantoulaye Ndeye Mbaye Gakou ca Italie maa ngi lay ziar aada Adama Mbaye maa ngi lay ziare bu baax a baax a baax di nuyu tamit euh, ki nga xam ne tamit euh, moom mooy euh, Marème Pouy ca Angleterre. madame Ba euh, Marème Ndaw ak monsieur Ba maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax a baax euh, di nuyu tamit euh, wàcce na ba sekk yëpp ku lim da ngay juub maa ngi leen di ziar bu baax a baax Serigne Gala Sindini sama xeleen ci yow maa ngi lay ziar bu baax Mbàkke di la ziar bu baax a baax a baax Serigne Xaadim Lo Gaydal borom ndaam maa ngi koy jaar bu baax Baye MD monsieur le préfet maa ngi koy ziar bu baax baax di la bàyyi nga tàggatoo. waa xam nga di nuyuwaat rek di ñaanal Alaaji Assane Mbaye mhm. bu dee na maa jigéen li mu def yàlla na ci weer top daal amiin yaa rabbal aalamiin yàlla wér na ci weer yàlla gën ko dëgëral bàyyi ko ak baatam di ndokkeel di ñaanal la marraine madame Oumou Idrissa Gueye yaayu xaadim ba di ko ñaanal yàlla yàlla bu mu lu mu tële